internet enquête 221 jàmm ci suñuy xibaar ak ci people li nga xamante ne moom lañ koy dooree nag di kàddu yi nga xamante ne kii di imam Alioune Badara Ndao yëkkati na ko rek jëmle ko ci Baye Mbaye MC ngir rek mu génne lépp loo xamante ni preuve la ñeel diggante Adji Sarr Ousmane sunko ngir firnde rek na lépp complot kese képp dong la na révélation yëpp génn noonu la ko xam ne ndax am na fitna yoo xam ne bu ko nit tegee moromam day jar rek ñu daal woon ci weeru mars ci lu ñeel Ousmane Sonko Adji saar wala sax mbirum Sweet Beauté nañu leen dédommager wala dédommager seen ay famille noonu la ko xamle moom imam Alioune Badara Ndao ndax daal am na loo xamante ne rek bu amee ci réew day jar rek ñëpp jug taxaw ngir rek faagaagal ko mu ngay woo itam Sénégal jullit wala sax ku ko doonul ñu génn rek jàppale ki nga xamante ni moo di bay mbay MC ngir rek mu daal di setal ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko benn yoon ngir rek Sénégal jëm ca kanam noonu la ko faram-fàccee ci interview ba mu amaloon ak suñuy naataango yeneeni révélation ak i preuve yu ñu mën a xaarandi ci keneen kile di Mollah Morgun mu ñuy xamal ne nag gannaaw ya nga xamante ne woon sax génne woon na ko ci dossier Mamour Diallo ak ki nga xamante ne rek moo di aji Sarr leneen li nga xamante ne mën nañ ko xaarandi ci moom jamono ji bëri na loolu ndax daal mbir boo ca nekkee wala xeex da nga koy faram-fàccee togg ko ba mu yor rek daal di koy yàqal ñi nga xamante ne ñoo ko war a lekk moom Mollah Morgun xamal nañu sax ni nga xamante ni gouvernement bi noonu la yore ay agenda nu ko raw rek la yore ay dossier waaye day togg rek xaar ko ba mu saytu ko ba noppi sa ko tegal askan wi la mu ca dolli rek ni daal dossier yi nga xamante ni yor na ko rawatina ci sax ay audio doon na ay arme yu muy xeexee ndax rek mbir boo ci nekkee da nga ci ànd ak stratégie ndax peuple bu amul stratégie rek day neex a daan ca interview ba mu amaloon ca Lutte TV kii di Bécaye Mbaye nag yëkkati woon fa ay kàddu xamal rek bàyyi rek ñuy diffuser ay combat ci télé yi gannaaw ba nga xamee ne rek digganteem ak ki nga xamante ni moo di Gaston Mbengue rataxatul loolu ñu ngi koy laaj sax ndax mën nañu xaarandi ay diffusion ci télé boobu di Bantamba TV la ma tontu nag ne daal dina xaarandi rek ba bés ba jot dinañ ci am lu ñu leer moom Bikembe mi ñuy xamal ne rek rus na wax wala def moromam lu ñaaw rawatina ci lamb gi nga xamante ne rek moom lañ ko xamee suñuy actu hôpital régional Amadou Sakhir mbay la nga xamante ne nag moo fa xew di rek ab ndaw si ñëwoon rek ngir wasin gannaaw ba mu àndeek borom këram daal ay kayit yoo xamante ne daal du ñuy firnde rek ni soxna Sile mënul am doom par voie basse bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu borom këram nag mu ngi ñuy xamal ne ndaw Sile mu nga duggoon ci boobe hôpital ba 9h ci suba jotee alxames waaye daal ñi nga xamante ne ñoo di sage femme ya jàppale ko benn yoon ngir rek ñu mën ko yóbbu ca bloc opératoire ba ngir mën ko rew xewle ba tey ci ay kàddu borom këram mu ngi ñuy xamal ne rek moom ak soxnaam Sile ñoo nekkoon ca salle d'attente ba ñuy war a accoucher euh, moom ak yeneen i jigéen waaye daal di nga xamante ne rek loolu la sage-femme def dina rek bu ndaw Sile rek di waxee ne mënatul supporter métit ga nga xamante ne moom la àndal dañuy ñëw rek waate ko ba noppi daal koy wax na ko muñal sa mat ñoragul naka noonu rek la ko soxnaam silee di wax ne jamono jile euh, maa ngi étouffé wu mënatuma nooyi mu woo sage-femme bi rek sage bi ne ko daal day daal di dàq jëkkëram ak ki nga xamante ne mooy yaay ndaw sile nga xamante ne ñoo àndoon naka noonu rek la jëkkër ji génn daal di dem di julli ñu woo ko rek daal di koy wax ni daal kii di soxnaam sile faatu na balaa loolu yëpp di xew nag moom waa jile sax mu ngi ñuy xamal ne daal waxoon na kii di sage-femme bile ne soxnaam sile nag mënul am doom voix basse dañ ko programme programme rek ngir opéré ko waaye la ko soxna si la tontu daf ne ko daal ñi nga xamante ne dañ leen doon programmé programme nañ leen ba noppi sa jabar jëlee rek dafa war a patienté ba heuram jot rek ñu daal di koy dugal bloc naka noonee nag la génn doon julli rek ñu woo ko ni ko daal soxnaam si le génn na àdduna ci loolu rek mu ngay naqar lu métit ka nga xamante ne jabaram jile àndoon na ko ba ni mu génnee àdduna déggante na sax ak ki nga xamante ne moo di directeur boobu la hôpital xamal ko li nga xamante ne rek moo fa xew lam ko tontu rek daf ne ko daal dinañ amal ab audit ngir rek xam yenn sage-femme ñoo nekkoon garde jour boobee ngir rek mën a def sanction ya nga xamante ne ñoo ca waar amee internet enquête 221 fi la ñuy yem ak yéen ci seen i xibaar di leen jox dig daje altine incha allah